baax a baax tàccu leen ko Wally Ballago Seck bu baax a baax a baax mariage aco ay Wally Wally Wally marir ndaxte Diop diggante mbay sama am ko wéy loolu ban ñu dagg baat ba dama la woo ba nga ñëw mën na la Wally nga ne ma naam mën na la yow waroon nelaw yow sañ sa sax waru la yow waroo lekk waroo naan waane waroo football waroo lamb waroo politique waroo def dara ma waroo lu ma war a def mën a la war kii way rek ko war nga ci jóg dëgg mbaam sa mbaam dañ ko mu bañ dagg baat ba yow boo wayee da ngaa war a way boo wayul da ngaa war a way xam nga ma jaaxal nag ah déet bul déedéet bu génnee waaye bàyyi la waay waaye def ko ci poos bi waay poos gaaw gi waaye def ko ci poos gaaw gis naa nit naa kër gu ñu naa ci école bi jàng dem ba yàgg njàng mi màgg muy màgg fii laa ko bis jaay bii laa gis mbalax mu saf saf moo xam ne juróom-ñaari fan di jot mu màgg yàlla na sa jàmm yàgg dama ne di ko dund de ñoo bokk maam bi ko ma way ko il faut ma xam naa ba kañ ba trois yaa ko digg kon nañ jël suñu yaa ko digg bijou yaa ne ba kon naa yooyu morso yëpp mi amul fii rek moo dafay fierté ay bokkam. laajte jom da ngeen bàyyi yow dugg la dugg njëriñ borom jigéen ñi gàlle gàlle bu def bu doon moom ñoo bokk benn moom dafay faral bu moom